gis muy euh, prix d'excellence du leadership local ñu ngi ñu ko joxee Grand Théâtre euh, le 19 décembre 2019 euh, prix la boo xam ne dafay sargal communes yi nga xam ne ràññi ko nañ ci seen doxaliin te ñu mën koo wane ci yeneen collectivités territoriales yi ENDA ECO ECOPOP moo koy organisé en partenariat avec le ministère des collectivités territoriale l'association des maires du Sénégal, l'association des départements, euh, le PNDL et les autres partenaires étrangers euh, kii bi nag genre concours la ndax dañuy ubbi liste ñu ne képp koo xam nga am na innovation wala doxalin woo xam ne mënees na ko wane nga euh, postuler euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benni commune ak département ñoom ñoo postulé woon ñu séddale ko nag six catégories ñun catégorie bi ñu postulé woon mooy engagement et participation des citoyens et des communautés maanaam fexe lépp loo xam ne ñu ngi koy doxal ñu boole ci askan wi ca nas ba askan wi bokk ci ni ñu koy nase xalaat ba doxaliin wa askan wi bokk ci euh, vulgarisation doxaliin wi bokk ci résultat ba également mu mën a tas ci askan wi ci loolu la ñuy nag présenté expérience bi ñu présenté woon mooy projet UCAD rural projet la boo xam ne université dañu signé ak ñoom coopération euh, Euh, relation de coopération cadre de euh, en relation cadre de coopération bi ñu ko signé ñaaxeen jox leen trente hectares suuf ñoom ñu ne lépp lu ñuy jàngale ci mbay ak sàmm dañ ko bëgg a université ñëw di ko jàngalee ñaaxeen ba tax na chaque année dañuy indi ñaaxeen ay étudiants ay chercheurs ak euh, ay professeurs ñoom ñu ñëw ñaaxeen defee fi seeni i mémoire wala seen i thèse wala seeni recherche première année ba ñoom ñu expoité 10 hectares bi ñu demee toll ci évaluation man en tant que maire ma ne leen man kat bëggoon naa ci projet bi ñu intégré ci groupement jigéen ñi ak groupement ndaw ñi loolu li muy jariñ mooy yéen seen xam-xam bi ngeen indi te nga xam ne ci kayit ngeen ko jànge war a ñëw jéem ko pratiquer ci terrain bi di ngeen fi fekk ñoo xam ne mbay rek la ñu xam ak sàmm ñoom la ñu xamee ci mbay ak sàmm ci ci ci ci xam nañ ko doon defee dana mën a compléter yéen seen xam-xam théorique boobu bi ngeen xamee ci big ak këyit bi ñu ko defee it wax dëgg yàlla ñoom ñu tànn fukki groupement ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo def ay fiche de renseignement gëstu groupement bu nekk nu mu tëddee nu mu organiser woon na nuy fonctionner lan la liggéey et cetera ñu tànn ci juróom yoo xam ne ñoom la ñu intégré wax ne juróom yooyu bi ñu demee dañ leen di daggal parcelle yu ndaw ci biir 1 lay doon sur 10 euh, université mooy indi jiwu université mooy indi ndox parce que en relation avec l'ANIDA tabax nañ fa forage boo xam ne projet bi rek moo ko tax a jóg donc jigéen ñi dañ leen wax rek ñoom ñu ñëw liggéey lu ñu liggéey it ñoom ñoo ko moom waaye duñu leen jox xaalis du ñu yóbbu dañuy wax ne dañu koy téye bis bu ñu demee nag ba nga xam ne ñoom am nañ loo xam ne mën nañ ci wut beneen partenaire ñu accompagner leen delloo leen ci seen dëkk installé leen fa périmètre yu mel noonu nga xam ne groupement bi moo koy moom bu ñu delloo ci dëkk yi dañ dañ en tant que collectivité locale en tant que maire en tant que élu dañuy waxtaan ak chef de village ñu may leen un hectare de terre ku nekk xam na ne ci àll bi am fi suuf jafe na ci jigéen ñi am suuf jafe na ci ndaw ñi waaye ñoon rek réglé nañ ko ci projet boobu ndax kuñ ci groupement bu ci génn ci tool bi dañ lay accompagner gunge la dem sa dëkk waxtaan ak chef de village waxtaan ak population ba ñu xool fu ñu lay daggal un hectare euh, commune bi jàppale la ñu clôturer ko commune bi jàppale la ñu indi fa ndox ni nga doon bayee ci biir UCAD nga continuer di bayee noonu loolu résultat bi ñu amagun ci biir ci juróomi weer lu matul juróomi weer juróomi groupement yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci kaani basante euh, kanja ak yooyu jot nañ ci récolter tamaate lu ëpp 3 millions ci lu matul juróomi weer euh, soxna si wax na ko léegi euh, présidente fédération des groupements yu nekk ci commune bi wax na ne ku ci nekk yaa ngi doon yëngatu ci sa dëkk waaye yëngatu ba daawoo ca mën a am loolu kon mbayin wi université wax ne daf ko bëgg a soppi produire mieux et durablement kon résultat bi feeñ na ndax ñoom récolte yi ñuy am maanaam rendement bi ñuy am foofu ñun mënuñu ko am ci suñu dëkk yi kon bu ñu ko vulgariser ci yeneen dëkk yi dina régler problème emploi dina rek dina def dem sax ba dem autonomisation des femmes parce que loolu lañ ci jublu fexe ba jigéen ñi soxlaatuñu dem ci banque yi di lebi soxlaatuñu dem ci institution de microfinance yi di lebi soxlaatuñu ci kii suuf si wax naa ko léegi jot ci suuf si réglé nañu ko ndax wax naa ne euh, jafe na ci àll bi jigéen ñi jote ci suuf si jafe na ci àll bi ndaw ñi jote ci suuf si loolu nag ñun bu ñu ko defee ñu ne groupement bu génnee ci tool bi kat danañ la accompagner nga am hectare suuf te du ñëm ci hectare boobu rek ndax boo ko exploité ba mu fees mën ñu waxtaan ak collectivité ak communauté bi village bi villageois yi ñu yokkalaat la yeneen hectare kon mën nañoo dem ba jigéen ñi lu ñu soxla ci suuf ñu am ko mën nañoo dem ba ndaw ñi lu ñu soxla suuf ci am ko lépp njariñu askan wi euh, même bu ñu ko defee sax ci am na firme bu ñu dawaloon dégg naa ci ab njaxate njaxate mu naan tool bi sax baax na ci ñun ndax ñun légumes yi ñu daan am yépp euh, ci ñaay bi lañ ko daan jëlee bu ñëwee dana xaw a lax xaw ma waaye fii moom da ngay génn rek dem ci ci penc mi ci marché bi jënd sa légumes yi frais ñëw soxna si defal la ci kii bi kon loolu baax na ci njaxate njaxate yi baax na ci si si yi baax na ci looloo yi <laughs> uh, waaw xam naa bala may bala may àgg ci budget bi wax dëgg yàlla partenariat boobu il faut ñu remercier ci l'université Cheikh Anta Diop de Dakar uh, en tête le recteur monsieur le recteur Ibrahima Thioub pour wax solos projet bi jour bi ñuy joxe distinction yi le comité scientifique dafa woo le recteur Ibrahima ci bu muy yëg ci podium bi wax ne projet bi kat mu wax leen ñoom ni ñu ko doxalee parce que ñoom dañoo bëgg yeneen université yi nekk ci Sénégal doxale comme UCAD ni mu doxale université également ni mu ko defee ñaaxeen mu yaatal ko ci yeneen gox yi pour wane ne ñoom kat wax dëgg yàlla li ñu indi ci ñaaxeen am na solo ñu koy sant bu baax di ko gërëm di wax ne projet bi dafay continuer parce que déjà comme des nu dem nañ ba def fi forage jigéen ñi également ci film bi mu ko doon wax naxooñu naxooñu naxooñu loolu également ça montre que engagement boo xam ne jigéen ñi am nañ ko engagement boo xam ne université am na ko ñu remercier le euh, euh, le recteur monsieur Ibrahima Thioub remercier également le comité de pilotage ci budget bi budget ren bi bu commune du Niakhène mu ngi toll ci téeméeri million ak juróom-benn yu tegal tuuti waaye téeméeri million ak juróom yooyu li ci ëpp nag wax dëgg yàlla état bi moo ñu koy jox ci état lañ koy yaakaare waaw ndax ñaaxeen amul ay ressources toujours ma di ko wax amuñu géej amuñu usine amuñu dara li ñu am rek mooy IMF impôt minimum fiscal mooy remplacer tax rural ku nekk xam na ne baykat yi amuñu ay ay ay ay ressources yu yu xaw a bari ba bi ñuy teg ñun taux yi ñu doon fayiku sax bi ci gën a bari 2400 la bi ci gën a tuuti cent francs donc dañu jël UMF bi cinq tranches la ñun les deux dernières tranches la ñu jël chef de carré bi rek mooy fay 2400 yeneen contribuable yi ci des yëpp 600 francs la ñuy fay loolu nag 600 francs nga dajale ci ba mën a am 4 millions 800 kon xam nga du yomb te budget bi li ñu ci def mooy ne bu ñëpp fayee impôt xëy na mën nañu àgg 4 millions 800 4 millions 800 ci 106 millions nag kon xam nga ne état bi li ci des moo ñu koy jox muy fonds de concours fonds de dotation ak sel bi contribution économique locale Euh, ñett yooyu bu ñu ko jëlee euh, ñu ne nag dañu koy séddale en dépense euh, d' investissement ak dépense de fonctionnement li ci ëpp dépense de fonctionnement lay doon mën nañu wax ne 65 pour cent budget bi dépense de fonctionnement lay doon waaye teewul nag ñi ñoo ngi jéem a ndax cette année jël nañ ci excédent de fonctionnement yi jël nañ ci 7 millions yóbbu ko ci investissement maanaam li ñu dese woon comme sel bi bi muy ñëw 2019 ah, au mois de n 2019 la jotuñu dépensé lépp li ci desoon dañ ciy jël nag ne lii kat excédent de fonctionnement la nañ ko jël yóbbu ko euh, investissement loolu ay opération financière lay doon ñiy def finance wala ñuy def comptabilité publique dinañ ko xam ñu jël foofu pour renforcer investissement bi euh, li doonoon suñu priorité tamit laa ngi ko léegi ci ci ci français bi bu ñu bu ñuy door a toog dañu waxoon ne ñun kat ñett mooy doon suñu priorité waaye bi ci jiitu mooy éducation ndax damay faral di wax ni nit ki lu mu lu mu wér wér wér wér lu mu am am am alal su amul xam-xam du mën a def dara kon njàng nañu jàngal nit ñi ba ñu xam ñu tollu ci jàng nañu leen jàngal ñu toll ci liifantu ñu liifantu ñu toll ci alphabétisation ñu defal leen alphabétisation kon njàng mi moo doonoon suñu priorité suñu concentré suñu yëpp nag li ñu amoon lépp ci diggante boobu wax daal lu ñu mën ci jàppale jàppale nañu leen ko waaye nag résultat yi am nañ ko ndax ci département Tivaouane 2015 ba tey jii nii ba 2019 résultat examen yu ñu fi def ci école élémentaire yi commune Niakhène moo ciy jiitu mën ngeen ko vérifier à partir de l'inspection de l'éducation de la formation de Tivaouane euh, ci 2019 bi ci région de Thiès commune u Niakhène moo jël troisième ci école élémentaire yi te li tax mu jël troisième ñaar ñi ko raw ay école privée ñoo jiitu te ku nekk xam na ne école privée ñoo ëpp ay moyens noonu ñu amee résultat ci école français yi noonu lañu ko amee également ci daara yi ndax ñun bi ñu ñëwee dañ ne daara yi kat il faut lu ñu jàppalee école français yi ñu jàppalee ko daara yi ndax daara yi ci système bi la ñu bokk te ñoom ñooy defar nit ñi euh, yaakaar naa ku ñu wax ne kii ndongo daara la wala ci daara la jóg génne wala jaar na ci daara du bokk comportement ak keneen ku bokk ku jaarul ci daara ñu ne ñun de li fekk ñu fiy jóge daara yi dinañ leen bàyyi xel ci lépp lu dugg ci éducation ci lañ commencé di leen jàppale ci lépp lu ñu mën ci ay fourniture demee ne ay basang ay alluwa ay mais ci construction également ndax ni ñu doon construire ay salle de classe ñu ngi construire ay néeg ci daara yi ni ñuy construire ay ay ay ay mur de clôture ci école yi ñu ngi construire également ay ay mbaar ci ci ci ci ci daara yi euh, moom it résultat bi feeñ na ndax concours national récital de Coran bi ñuy def Senico di ko organise chaque année depuis 2015 ñiy représenté département bi ci commune Niakhène la ñuy jóge maanaam ñiy représenté département Tivaouane au niveau national ci commune Niakhène la ñuy jóge bu ñu jëlee concours bi au niveau euh, régional département tiwaawan cinq personnes yi ñu fiy tànn ñu war a représenter euh, département Tivaouane bu ñeent ñu jógewul ci commune Niakhène ñett ñu ci commune Niakhène la ñuy jógee récemment la ñu lancé édition 2020 bi cinq yi ñu doon jël euh, lancement bi ñu ngi ko defee woon Tivaouane cinq ndongo daara yi ñu doon war a tànn première bi deuxième bi ak troisième bi ci commune Niakhène la ñuy jógee ñu ne nag comme am nañu résultat yu investir ci noonu foofu ñu teg suñu tànk nañ ko fi teg du ñu ko teggi waaye nag nañu defaat suñu première priorité nañ ko yóbbu ci santé ndax euh, li ma wax léegi boo jàngul doo mën a def dara waaye boo wérul tamit doo mën a def dara kon nañu fexe ba nit ñi ñu faj leen ñu wér ci la ñu wax nag à de cette année suñu priorité mooy santé lépp lu ñu am danañ ko jàppale santé lépp lu ñu mën danañ ko defal santé képp ku ñu xam ku ñu mën a dimbali danañ la orienté ci santé ndax bari nañ fi ay jafe jafe-jafe yi bokk na ci déjà bâtiment yi baaxatul baaxatul poste de santé yi bâtiment yi poste de santé yi baaxatul ñetti poste de santé la ñu am ñaar yu officiel la ak benn boo xam ne case de santé la woon mais partenaire bu nekk ca village ba ressortissant village bu nekkoon Allemagne ñoo ko tabax wax dëgg tabax bu mucc ayib ñoo ko tabax équipé ko construire logement donc bokk na ci réunion tey bi en relation avec euh, l'autorité administrative la sous-préfet ñu ne dañu bëgg demander conseil bi délibéré na ñu dañu bëgg demander ñu requalifier ko de case de santé à poste de santé boo ñëwee ñaaxeen poste de santé bi bâtiment yi màggat na maternité bi également màggat na équipement yi amul ambulance commune ñaaxeen yépp amul ambulance bind nañ ministre de la santé digg nañu digg nañu ba tàyyi waaye ba léegi agseegul kon foofu yéen ñu ngi soññiwaat euh, euh, boo xoolee note bi mu bind urgence la wax mais ci suuf dafa wax ne bu kenn évacué ci lu dul ambulance ci note mu ngi note bu ñuy wax ci urgence yi parce que ci note bi dafa wax ne euh, mu ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci liggéeyukaay faju bérébu fajukaay urgence yi nañ koy gën a def farata ku fa ñëw nañ la toppatoo waaye mu bindaat ci suuf ne ñu structure sanitaire yi ñuy évacuer ci lu dul ñu utiliser ambulance loolu nag su ko defee kon commune bu mel ne commune Niakhène am ñaari poste wala ñetti poste de santé amul ambulance dañu xaw gàllankoor dañu ci profité ci circulaire boobu fàttaliwaat na ñun kat demandé woon nañ ambulance digg nañ ay at léegi ak seegul ñëwoon na fii également def pause première prière euh, euh, maternité xawlu waaye ba ba léegi février 2017 la woon waaye ba léegi tamit dara amaatagul léegi demandé nañ ñu reconstruire les les infrastructures des comités des postes de santé wax nañu également ñu indil ñu ambulance bu ñu mënee am ñaar baax na bu ñu mënul am parce que xawlu gi nga xam ne moo moo nekk ci àll bi digganteem ak tali bi war na mat 8 à 12 kilomètres te ci suuf ngay kii waaw kooku bu ñu nee ko bul évacuer ci lu dul ambulance kooku il faut que ñu yóbbul ko ambulance euh, poste de santé bu Ndemeen ak bu Mérina Assé également demandé nañ conseil bi délibéré na léegi pour ñu requalifier leen ñu passer de case de santé à poste de santé parce que dañoo am ginnaaw maanaam village yi leen polarisé dafa bëri li ñuy am ci ay ay malades yu fay ñëw dafay bëri te bu dee case de santé capacité dafay limité rawatina Ndemeen gi nga xam ne construction yi ak yépp am na construire nañ poste de santé construire nañu logement ICP construire nañ euh, maternité construire nañ logement sage-femme équipé nañ poste de santé bi équipé nañ maternité bi kon li ci des avec reconnaître ko comme poste de santé euh, mu dugg ci pyramide sanitaire bi ñu affecté euh, ICP ak sage-femme loolu rek moo fa des.